ku fi yëngatu di nga daanu ku parewuta bëre di nga bëre taxe ngi noonu war a taseeg Top Salenda Boy Diola bu dafa war a taxaw ñu seetal ko légi léegi léegi ñëpp a ngi toog di seetaan di aar combat boobu demal leen ambiance si kanam tuuti ñu ñëw yéen a combat yi di jëmaan ambiance gola jina menoli même avion bi bu taxaw fii dinañ ko bëral avion fii dañu jóge depuis Djibidione ba fii bëri la ñu ñëw la ku nekk nga taxaw nga bu baax boo ëllëgee nga wax mun na wax ñun dañu lay daanal daanal bu nga xam ne moom dafa leer ñun du ñu bëre benn même ba ñetti yoon dañ ñu bëre mais amul am na ku nga xam ne amul fa fii que nii di xam am na ñu jógee ji dafa jógee ji ak Amadou Jiba ñooy jógee ji di joon ñu ñu ngi que mbokk yi Desso ak Cori caméraman jox ma Desso ak Cori oh Desso daan na Cori Desso daan na Cori oh combat bu métti la Linguère laaj ko lu eh, eh lii am na lu si ne Linguère laaj ko ñu bàyyi ko mu sol caayaam bi ba pare rek Sekuna Jeju man yaa waxoon ne dang ma yóbbu rajo Gambia man maa indi woon daal daal laay kii kii ay xel tubéy yooyu noonu balaa mbori di ko dee taka macha allah ay xale ndaw yo ko dee taka lol tam bu ko nanga wax ma ci tuuti bala ño ñëw ci yow parce que sa daan bi macha daan gi set na wecc waye man dafa am luma bayyi bàyyi xel saa su nekk dama leen gis ngay and ak ay xale yu ndaw waye xale yu ndaw nono ngeen ba yi nga xamne mbori mom len wara taka takka dugal biir geew gi mom la gay di taka ngay wër ak ñom ma bu ko nanga wax ma tuuti si lolou bala ñuy gëna sori waaw li ngeen lolou ma dina ci sawara wax parce que ñun joolaay bu ñu amee njëmb bu bees danga koy jox xale bu jigéen bu ndaw boo xamante xamul dara moo koy jëkk a sol mu dindi diisaay bi parce que bu dul loolu kii nga xam ne mooy mag ko mën a sol day diis ki moom ba moo tax ñu jox ko xale bi ndayu mu wàññi ko tuuti looloo waral ñu jox ko xale jigéen yi ñu sol ko di koy watat ki biir géew bi bala moom mu koy soog a sol même bi bala mu koy sol xale bu jigéen moo koy jëkk a sol ñu yor ko yor ko ñu mën a jox waaw loolu cosaan Joola la kii mooy champion waa Molom perso la tudd. yow yaa tudd man may perso. perso perso. perso moom lu muy firi. ah. lu muy firi lu muy firi. perso mooy sama tur dëggantaan changé wu tur man may perso Santa Mendy Njaago laa si Joola laa juddoo foofu laa waa joolaay jëndul la rek. ah. waa joolaay jëndul la. non jënd ñu ma foofu laa nekk. waaw. man jële bi dafa set. waaw man noonu laa mel li ma gën a bañ mooy ku am doole nga jow di ma won sa doole dama lay won expérience noonu lay bëree comme ni ñu waxee mentalaat mentalaat bu la tee noo mënut mag da nga yë nga yëngatu noonu laa mel waaw. jàmbaar waaw. léegi seet na koo bëgg a bëree léegi nii jamono yi koo bëgg a bëree ku bëgg a baraak man rek bëgg naa baraak moom yow gis nga ku nekk nu muy bëree kay nga bëgg a jamono yi kan nga kan nga soxla ñoo ñun suñu aaral lu ñu wax ñu ne oh, bul naan man kii laa soxla loolu baaxul si ñun képp ku la rek nga xam ne ni soxla na xam Gambia taxawee di nga bëree ak moom ah bu Gambia taxawee di nga bëree ak moom Gambia ah bu dee doom moom bëgg na mam tam bëgg naa quoi top slender nag bañuma kenn laa wax. waaw ah, ku rek a bëre. waaw. waaw léegi mun ngaa delluwaat si digg géew gi ñu gën laa bàyyi xel sa caaya gi nice na de. waaw war naa nice parce que man tam damaa nice. loolu mooy dëgg Ageda ana Top Selenda waaw waaw Top Cylinder Boy Jola woni Top Cylinder ano sanni bu kane ki ak kooku ko yirel mi bettitore fuli bof di kayu weni kooku de suusil kooku wan manje wo jembe senile ka betak bar berso opodi chori kulani nolan karoga koli ku berso na babet chori ukeno ku gabutak umatal ku gabutak buku jebe bare bukana jigumbulo ja panjak mamuk kayga kogudo bukana kulede juk mayemi dege eno isabari jigumbulo di fulibof lilawol banji gumbuloɗi fuli bof bukan andi kungolan kuju kaya ma komi ja heno ya, di berso ndi coori bulallankuɗogo o oh, ñenom iya, kaga butak karoga ko folak bersoɓe de coori nana ɓetum coori yaɓan aban nabi kan ɓaƴ kammi ke di lingier di sofe wala gum ano janjam woto eno maragum mo pambula nyujuka top cylinder obodi boy nyola bukana koli kay berimi ano sana omana kana wana ngolemi berso odi chori li ma jaaxal si e top cylinder ak Boy ñoom ñaar ku nekk ngay làqu sa morom lii lu ko waral mystique bi am na lu mu demee ñoom ñaar ku nekk ngay làqu si sa gannaaw jàpp la na ko waral mi sa ñaas Matar dara waralul ko gannaaw li nga wax loolu rek la waaye nag loolu terewut ñu jaakaarloo parce que foog ñu bëre